dama ne madame la ministre yëpp yi du yomb tey ndax du tax du politique mais nag boo kontaantee boo ne sa mbégte yow ba ngay ñëw da nga ma ne politique andiwu ma Benno Bokk Yaakaar bi ci laa bokk mais andiwu ma damaa ñëw financé ñoo xamante ne sax bu leen neexee nan bokk Pastef bu leen neexee nan bokk yeneen parti bu leen bokkee na nga doon jigéen dëkk bi dëkk bu nga ñëw financé la loolu la ma ministre wax nee ma bi affaire u Sénégal la le Sénégal de tous le Sénégal pour tous fu waay mën a bokk xeet boo mën a bokk noo mën a mel ñu ne financement yi mën nga cee bénéfice parce que liggéey moo nu ñor madame la ministre handicap yi na la ñu ngi nee toog dama ne ñii leen tax a jóg mooy liggéeyal Sénégal liggéeyal réew mi fa nu teg seen tànk foofu la yi bu doon politique rek fa muy wut mairie la koy defee fa parce que candidat la ci benn commune kon foofu lay dem politique fa yóbbu ko fonds yi mais dafa taamu Ngeko départ Dakar ñëw ba Ngeko te fii xam nga ne du fi faloo fii du fi am loo xamante ne mooy wutu fi commune kon dafa ñëw rek pour dimbale Sénégal dimbale jigéen ñi dimbale askan wi jàppale leen moo ko tax a jóg ba ngeen tàjju ko. tey bés dafa nekk bés bu pour waa FONAMIF mais dafa nekk bés bu pour état du Sénégal ni ma waxee léegi dafa nekk benn fonds bu bees bu état bi créé en deux mille vingt juin deux mille boobu léegi nag ñu ngi doon teg di avancé ak di jàppale ministre bi ak ak ak nguur Sénégal tey nag la ñu soog a commencé def suñu activité mais suñu première activité bi koy def mais waxtaan madame ministre dafa ne ah yow de fond bi da nga ne lan moo tax a jóg euh, euh, def euh, territorialisation des politiques publiques mu na ma li gën booy kon boo ma ko may ñu dem ànd ba ci biir réew mi defee ko foofu au lieu que ñu jëw Sénégal mu na mooy acte bi ngay xam nga posé ko yow. nit ñi nga am proximité boo xam ne dem ma nangul ko loolu te rëccu ma dama fi tey gis fi teew ci ay nit yëpp la fond bi état bi ko créé ndax ay mbëbët la woon APCFD ak les secteurs les membres secteur la microfinance ñu toog ak également les bénéficiaires nga xam ne ñooy liggéey ci institution microfinance yi dañoo soxla woon ay ressources parce que dañu soxla toujours xaalis parce que li ñuy def ci microfinance ci muy def ci réew mi ci weer xam ne banques yi mun leen ko jox gestion microfinance jox leen ko état bi nag danaa créé benn fonds boo xam ne dina leen jàppandil ba nga xam ne seen soxla yi am yëpp ci problème su ressource dinañ ko jox waaye li ci gën a li ci gën a gën a gën a gën a euh, yitteel fonds bi yitteel nguur gi mooy taux d'intérêt yi xam naa loolu moo leen gën a soxal ñu tam mooñu soxal président wax madame le ministre ne ko dama bëgg ngeen réfléchir ak waa FONAMIF ak yeneen acteurs yi nekk secteur bi parce que bëri nañ ngeen wax ñu nu ngeen xalaatee ñu wàcce taux d'intérêt yi ba nga xam ne du nga xam ne du gaañ ñi koy jëfandikoo mais tamit dina jëriñoo ñi nga xam ne ñoo institut de cofinance ñu liggéey ci loolu boobu léegi am na ay yoo xam ne également mu nekk assistance technique pour jàppale institut de cofinance yi ci ay jumtuwaay yu bees parce que li fond bi bëgg mooy également yéen ñi nga xam ne ngeen dégg seen xaalis institut de yi ngeen ci am ci kóolute institut de cofinance yi doy leen bu nga xam ne dafa leen di doy dafay nekk yu jumtuwaay yoo xam ne dafa nekk lu lu ànd ak jamono xarala yu bees yi ñu mun leen koo jàppale ba nga xam ne institution bu mu gën a ndaw bu nekk Ngeexoox bu nekk ginnaaw Mbuur boo xam ne bu soxlaa bu jaww sax muy jóg waaye mën na toog fi mu toog def opération bi yooyu léegi nga xam ne ñu leen yombalal seen accès ci foofu. madame la ministre dalal jàmm si dalal jàmm à côté de vos sœurs dalal jàmm à côté de vos frères toutes les populations de Ngeexoox vous remercie may wax ni ñu ngi nuy délégation bi nga àndal yëpp. di nuyu jigéen ñi fi teew ñépp di nuyu góor ñi mag ñi ndaw ñi bàyyiwuñu kenn ah euh, di wax euh, madame la ministre mënuñu la fay Sénégal mënu la fay parce que nag bi nga yëgsee rek ñëpp xam nañ ni yëgsi nga ah changement yi nga def yëpp gis nañ ko te lépp nag jëm si microfinance ak euh, banque yu ndaw yi nga xam ne moom lañ tuddee microfinance mutuelle yi comme suñu bos bële nga xam ni am nañ ko madame la ministre nga xam ne jigéenu Ngexoox dañu organiser euh, si benn plateforme lañu regroupé wu plus de 177 euh, GIE ñoo fa nekk ñoo la defal affiche bu rafet bii nga jàkkaarloo nga xam ni activités yi ñuy def yëpp daanaka mi ngi si di jéggalu encore une fois retard bi parce que bi fii lañ fanaan pour que rek organisation bi bañ am benn faille monsieur Sarr mën nañu seede dañoo nekk ensemble démb monsieur Sène fi lañ dem bàyyi ma fi j'ai passé la nuit ici kon ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp ah di la wax madame la ministre euh, gannaaw bi ñu dégloo discours yi fi jaar yëpp te bokk sa département ñu lay wax ni ñun aussi dañu am benn mutuelle d'épargne et de crédit dafa juddu juste rek avant Covid bi ah mu impacté si lu bëri bëri ñu soxla moyen nag ndax ni ñu koy waxee moyen yi mooy lan mooy financement yi xam nañ ni duñ ko may xam nañ duñ ko abale ñu soxla ko parce que dañuy dem ak les moyens du bord amuñu mais bëgg nañ xëy na bëgg nañ mais doole bi amu fi kon euh, madame la ministre plateforme des GIE genre de ngexoox boobu ma lay wax nga xam ni presque quatre-vingt-dix pour cent des femmes de ngexoox ñi ngi foofu ñoom ñoo def exposition bële produit yële ngay gis yow ñoom ñoo koy liggéey daaw béy nañ 4 hectares gerte gerte gaa ngi ne la nga jàkkaar lool ñun jigéen ñi ñoo ko def produit yële ngay gis yow ñun ñoo ko ñun ñoo ko def macha allah madame la ministre kon nga xam ni jigéen. ah moom jàgg na mën góor niñ koy waxee ngeen baal ma mais nag jigéen moom képp ku xam nañ ni lépp loo ko jox jox ko góor jigéen moo si man loolu leer na ñëpp galaat yu rafet yooyu nga xamante ne moom la ñu tëggal tànqal ñu mel ni loo xamante ne ñun dañoo toogoon di ko xaar askan wi toog di ko xaar ñu dem ba tey ñu yegg si muy lan nañ ndaw ba mën a dimbale askan wi nga xamante ñoo gën a néew doole nekk si suufaale bi te mënuñu jotanteeg banque yi te SFD yi nekk seen jotuwaay naka lañ leen dimbale dimbalee président de la république mee ne naa sos benn boo xamante fonds bi danañ wàccee taux bi nga xamante moom lañuy ñuy leblee mu gën a oyof si ñiñ koy jox SFD yi ñu koy jox itam ñu oyofal leen ko ñi ko seen partenaires yi leen koy jox oyofal ko ba ñu mën ko oyofal ñeneen ñi koy jotale muy membre yi yooyu nag nekk ay membres yu participer si institution de microfinance yooyu nekk ay membres partant moom institution yi naka lañ leen di dimbalee amul sàmba amul demba amul góor amul jigéen ñépp ñoom ñoo mën a accéder si fonds yooyu kon dañ leen di wax ne gannaaw ba président dawalee ci yërmandeem xelaat naka la war a développer réewam mu ne nii fonds bii da koy teg ci kanam askan wi yóbbu ko fa ci jege daal jege ba pour ñu mën koo jëriñ ñu wàccee taux bi taux mooy lan tono bi nga xamante moo tegu si bor bi muy intérêt ba ñuy wax mooy tono si wolof tono boobu ñu wàccee ko ba nga xamante da ngeen ko yéen normal attan ko kon dañuy remercier monsieur le ministre remercier monsieur le président de la remercier le directeur de la FONAMIS remercier la PSFD si seen taxawaay boo xamante bu dynamique la di ñu di ñu gunge gunge boo xamante bu rafet la bu aw yoon la waaye nag du ñu yem foofu dañ si teg ne leen ñun kat membre yi lañ fi nekkal waaye mënuñu dara yéen a ñu mën a dimbale dimbale leen ñu gunge leen wàllu matériel si wàllu xam-xam si wàllu xaalis ñu mën a jàppale askan wi jërë ngeen jëf. di mujjee ci ñaar maa ngi mujjee ci ñaar benn bi mooy DG Fanamif muy Amadou Goudiaguèye. ma koy féliciter mais surtout di ko encourager parce que liggéey bi nga xam ne suñu kilifa moom la ñu sant muy moom muy man dañu am kilifa ndax lu ñu mën lu ñu def kenn rek a tax muy le président Macky Sall kon liggéey bi ñu sant mooy fexe ba képp ku war a jote ci ndimbalu état pour mën a liggéey ñu fexe ko donc moom. foog ñu jàppale ko foog ñu encouragé ko ndax dafa am pàcc bu bëri ci réalisation économie sociale et solidaire bi nga xam ne président loolu lañu ñu sant tabax dafa jafe fond bi président Lamine Gueye wax na ko sànq nee na lu tolloog fukki at ak ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñi ngi wër fond bu mel ni ñu def muy fond national de la microfinance nga xam ne danañ dem ba lépp luy jëm ci leblante mu mën a jóge ci benn bunt buy jóge ci benn bunt moo xam lu état bi di def la moo xam yeneen programme yi ñu ñuy def la bunt boobu muy aw yoon ba dana gën a gaaw dugg bi dana gën a yaatu danañ gën a mën a toucher le plus nombre de personnes mais jotin bi dina gën a oyof tey principale mission fond mooy tono maa ngi koy door a dégg tey intérêt taux d'intérêt tono bi nga xam ne kiy leb xaalis bi dañ ko ciy teg mu oyof waaye man mi nga xam ne maay jëwriñu meg secteur bi dama amee ñaari njaboot benn bi mooy ñiy jëflanteeg institution de microfinance yi ñiy dem dafa lebal beneen bi mooy ñiy leble ci seen bopp kon taxawaay bi ñu war mooy taxawaay bi nga xam ne kiy leble du gaañu ki ñuy lebal du gaañu loolu foofu la taxaw ndax APSFD dafa nekk suñu partenaire te ñoom ñu nekk yoon ba nga xam ne fa la war a jaar pour joteeg askan bi ca lañu ñu bëgg loolu nag pour ñu def ko foog ñoom ñu wutal leen jumtuwaay yoo xam ne danañ leen mën a jox ci nu mu gën a yombee ndax fi ngeen di dem di lebi xaalis bi ñoom dañu mel ni ñuy jënd xaalis dañuy dem jënd xaalis ñëw lebal leen xam nga ku jënd xaalis metti na donc jënd boobu ñu koy jënd ñun état dañu bëgg jaarale ci fonds national de la microfinance jëndin boo xam ne du metti ci ñoom te buñ leen koy jox day oyof ci yéen kon loolu buñ ko santee Amadou Goudiagueye kon foog ñu encouragé ko foog ñu taxaw ko moo tax ñaar téeméeri millions yi nga xam ne lii mooy samp tàmbali FONAMIS mu déparé ci ñaari téeméeri millions waaye ministère bi ci boppam ci programme bu mu amee bu ñuy wax ligne microventure place et prix dina ko jagle ci année deux mille vingt deux bi ñuy dem. lu tolloog milliard ak ñetti téeméeri million ngir mu gën leen mën a taxaw ci ndigalu président de la kon sànq bi may tàmbali dama ne ñaar laay mujjee ci nuyoo bi ci njëkk wax naa mooy DG Amadou bu jëkkee bi ci topp nag mooy jigéen ñi yéen ñii mbooloo mi nekk xam nga fecc liir moom bu neexee rek yaa jaatee ci mbagg waaye ñun Sénégal tàmbalee ko ci président Macky Sall ba mu wàcc ba fii ñu mën a toog tey di foo di ree ci jàmm ak salaam di wax loo xam ne mën nañu jëmmale kanam buñ ko amee war nañ ko mën a sante suñu ayima yi kon imaam yi yépp maa ngi dellu di leen nuyu di leen santal ci seen taxawaay ndax ñoom ñëpp ñëw nañu en mais dama ne yéen laay mujjee ndax année deux mille vingt bi ma yor daf ko fas yéene teg ci lépp loo xam ne encadrement la ak structuration des organisations de fem ndax des organisations de femmes et des acteurs économiques ndax tey yéen a ngi yëngatu gis nga ku xool bâche bi xam ne jigéen ñaa ngi yëngatu te yemul booy xoox rek. jigéen yaa ngi yëngatu Ngeexoof jigéen yaa ngi yëngatu Maka Kulibantang jigéen yaa ngi yëngatu Nioro jigéen yaa ngi yëngu Fuuta jigéen yaa ngi yëngatu fépp fi mu ne boo demoon Dakar tey fajar gi boo génnee soxna yi rek ngay gis ñuy kër kër di daan doole kon yéen a ngi ci ba président Macky Sall li mu bëgg mooy. ñu tegal leen jumtuwaay yoo xam ne da ngeen di génn ci statut informel bi dem ci statu formalisé loolu nag loolu la ñu fas yéene def 2022 ci ministère bi te buñ koy def dinañ ko def ci ñaari anam ndax sànq nee naa leen dama njaboote ñaar dinañu gën a dimbale institution de microfinance yi moo xam article 44 yi la wala SFD de petite taille yi pour ñu gën a mën a taxaw nga gën a mën a jëflanteeg yéen mais dinañ dimbale aussi jàppale gunge askan bi pour ñuy mën a gën a mën a dem ci institution yi te loolu pour mu nekk dafa am un travail de base boo xam ne foog mu am mooy ñu gën leen encadrer ñu gën leen structurer ñu gën leen jox éducation financière te ministère bi am na programme national d'éducation boo fi financière boo xam ne danañ ko jox acteurs yi bénéficiaires yi beneen bi mooy président ci boppam promulgué na loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire loolu également dina jàppale ci acteur économiques yi am agrément bu ñuy wax label ESS boo xam ne ñun ak ministre yéen ministères yi ñoon koy jàpp àndandoor def ko moo tax maa ngi félicité bu baax soxna Daba Ndiaye di madame Niang liggéey bi am na solo taxawaay bi am na solo femme de développement boo ko gisee rek danga koy xam moo tax plateforme bi DC wax na ma léegi tase nañ waxtaan nañ plateforme des GIE genre de Ngefor année 2022 incha allah di ngeen bokk ci ñi ñuy njëkk jox subvention subvention boobu ñu leen di jox comme ni ma ko waxee mu permettre leen ngeen gën taxaw pour gën a mën a jëflanteeg institution de microfinance yi sànq wax na moom au delà des doléances wax na réhabilitation foyer des femmes may indil sama mbokk jigéen yépp nuyoo ministre de la femme madame Ndeye Saly Diop Dieng léegi di nga waxee ci wàllu foyer bi dama ko defar message mu ne ma réhabilitation boobu dina ko boole ci programme am kon nag c'est bien entendu et bien leneen li ci des nag mooy fépp foo xam ne ñu ngi fay gis taxawaay fépp foo xam ne ñu ngi fay gis lu mel nii dama ne foog ñu teew kon li tax ñu tànn Ngeexoox mënoon na tax ñu tànn Ndar mënoon na tax ñu tànn Thiès wala ñu tànn Louga waaye bu ñu xawee génn Dakar tuuti rek ba ñëw ci mbeexu ngeexoox bi fekk fa la wut ci jigéen ñi muy transformation muy taxawaay muy liggéey ma ne dañuy am mbégte des fii ndax ngeexoox fii nag dama fi dama fi bëgg samp bu baax a baax a baax ndax dama fi fekk ay femmes de développement fekk fi ay femmes de terrain fekk fi des femmes battantes kon monsieur le lay gërëm di la sant ci opportunité bi nga am pour dalal ñu fii tey ñun ak Fonamif ak mbooleem suñuy gan mais rëccuwuñ ko ndax bi ñu ñëwee fekk nañ fi sous-préfet boo xam ne taxawaayam yéen ci seen bopp yéen a ko wax kon aussi sous-préfet ñu koy remercier di ko féliciter di ko encourager ci liggéey bi kon mën nañ jàpp ne bés ni ki tey Fonamif dana tàmbale wër réew mi dem à rencontre des acteurs économiques dem à rencontre des SFD moo xam isolé yi la wala article 44 pour mën leen gën a gunge ci li nga xam ne mooy seen taxawaay des na lu dul yàgg dara incha allah danañ inaugurer siège bi ne Dakar comme saa ñëpp xam fa ñu jàpp ne volonté président Macky Sall ci. fexe ba képp ku war a bokk bokk tàmbali nañ ko tey fii ci Ngeexoox ñu ngi sant di leen gërëm di leen